taxaw ci avant ñu gën a yaatal par rapport ak li xew tey jii nii des bus yaa ngi koy wax sànq des maisons de responsable wala des véhicules yoo xam ne euh, dal nañ ci kawam même na Ndour Faye elle a même euh, ba tax jël na ay dispositions am euh, elle est la seule parce que bëri na ci ñoo xam ne tey jii nii xëy na ragal nañoo génn Sénégal yéen yàlla dogal ñu dénk leen ngeen war a assurer sunu sécurité qu'est-ce qui est fait tey jii nii nii pour que le Sénégalais puisse sortir mën a circuler librement. dëkk dafay ab yoon dañu nekk dans le cadre d'une république république boo demee ci euh, étymologiquement ci signification grecque ak latine bi mhm. mooy res publica la chose publique mooy li ñëpp bokk nekk ci état de droit maanaam ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon ki féete suuf ak ki féete kaw des simples individus peut-être comme man à la puissance publique mhm. tout le monde doit être traité d'égale dignité ñu nekk euh, euh, ci dëkk boo xam aussi constitution daf ko lal muy ndeyu charte réew mi. ci constitution boobu yoon dafa may nit ñi ñu manifester c'est-à-dire mun nañ manifester seen opinion ci dox ci mbind ci wëy ci dessiner ci lu bari wante manifestation boobu doon dafa war a ànd ak ak maanaam ordre public maanaam régime déclaratif. yaa ngi dégg. Mhm. boo demee ci constitution bi code pénal article quatre vingt dafa wax lu leer ci wàllu rassemblement. muy cortège muy rassemblement muy yu noonu muy caravane en tout cas toutes sortes de rassemblement boo demee aussi euh, euh, am na benn euh, décret boo xam ne c'est c'est ça date de mille cent quatre-vingt c'est le décret soixante-douze six cent trente-six au niveau de ces articles vingt-deux et vingt-trois mm-hmm. pouvoir yoo xam ne dañ ko jox maanaam administration territoriale sur le maintien de l'ordre public le rétablissement de l'ordre public et la tranquillité des citoyens mhm. donc loolu yëpp day wane que mënoo jóg rek def loola neex occuper occuper voie publique bi loolu mënu nekk parce que li xew jamono ji mooy lan parce que ñaari dossiers yëpp en en vérité c'est des affaires privées mais est-ce que la situation est sous contrôle li ñuy wax ak nii parce que la euh, situation euh, li ñuy gis réseaux sociaux yi d'abord est-ce que lépp dëgg la est-ce que lépp tay la parce je touche du bois. Mhm. Sénégal mosul am guerre civile Sénégal mosul am acte terroriste gënuñu le G5 c'est des actes terroristes maa ngi ñëw gënuñu le G5 bi ñu wër ma jox cër état yooyu trop gënuñu yeneen dëkk développé nga xam ne muy États-Unis muy Belgique muy Canada muy Chine nga xam ne ay acte terroriste am nañ fa gënuñu Amérique bi nga xam ne Donald Trump day contester ay élection mhm. lu nekk xew na fii le le le principal opposant yoon dal na ci ko am François dem condamné nañ ko à quelques semaines de élection présidentielle Dominique Strauss-Kahn xaj nañ ko dem élection. loolu c'est la justice Sarkozy. def nañ Sarkozy ko. voilà Sarkozy yoon dafay dal ci ko am dëkk yooyu nga ne dañ koy jàpp comme ay référence donc Sénégal nañu sant yàlla réewu jàmm la la situation est sous contrôle ku nekk na jël ay